ci ndigalu sëñ Muntaxa Bachir mi nga xam ne mooy xalif général murid yilif Touba yilif itam Poroxaan ci ci wàllug baayam wàllug ci turam ak ci ndigalam ak ci baatam buñ ko waxee bàyyiwuñ benn murit bàyyiwuñ sax fat benn jullit boo xam ne ak njullit ci yow kon ci seen tur ñoom ñëpp noonu lay daral jàmm ak mboolem kilifa yi nga xam ne Alassane lim na leen te ñu ànd ak yow agent bi ñu tàmbalee ci ba agent ba ci mujj di leen sant bu baax di leen gërëm ci tànk yi moom xaw ma sax nu ma koy nu ma koy tudde ndax nit ki moom bu fekkee dara da dafa mën loo loo mënut nga soxlaal ko ko sàkk ko ko sàkk ko ci moom mu jox la lépp ba noppi ñëwaat nag di la nemmiku loolu kenn xamul nu mu tudd xanaa yitte ju ëpp ak yëggu ëpp rek rek lañ koy mën a wooye kon nag loolu seen yitte ju ëpp ak seen yëggu ëpp rek doon mën na noonu lañ koy mën a tuddee waxuma laa nag li nga xam ne Alassane lim na ko te ngeen def loolu moom dañ koy seereel mbooloo waaye man mi nga xam ne bis bu ne maa ngi fi di ko dund di ko jot fekkoon na mu xam ko bu baax kon nag ci turu sëñ bi noo lay sant di la gërëm di la ñaanal di ñaan cant gi ak ngërëm nga jot li ko sa kilifa ah, di la di la nag cant gi ak ndax ñun ñëpp yam kenn ku ci am kilifa ku ne bu la sa kilifa digalee benn nga defee ko na nga ko mane wala boo ci sawarul nga def nga defee ko na la neexee ah, yow nag ni li la sa kilifa digal te nga wax ko léegi mënoon nga koo bañ wax ndax da nga koy jëf nu di ko gis kon loolu yaa ko moomal sa bopp yaa ko jëfal sa bopp cant gi ak ngërëm li yaa ko moom lañ ca moom nag jaaral nañ ko ci sa loxo nga àggale ko ci ñoom di daanaka alsaan ni wax mënu ma cee yokk dara ndax wax na lépp wax na liñ fi bi toll wax na liñ fi jot li mu wax itam noonu rek la amee daa waxoon naa leen ne leen bu fekkonte ne mm, li ngeen di wax cent cent am na ma xam ne Senelec am na cent pour cent ci li nga xam ne soxla nañ ko ci màggal ren nag ëpp ngeen ko xaw ëppal ngeen cent pour cent xaw ma nu muy tudd ndax jànguma tubaab <laughs> kon nag ngeen xam ne ba fii liggéey bi daal fi mu toll nii li ci seen wàll ni ko Alassane waxe liñ ci doon seen séentu lépp def ngeen ko ba romb ko loolu nag moom ginnaaw nun wax rek lañ ci man ak ñaan waaye nag ki nga xam ne moo tax ngeen def ko mooy subhaanahu wa taala wa taala ak réew mi eh, yàlla moom jeexalut dara sañ nañ koo ñaan nag liñ ci mënut mu defal na ko loolu mu fa mu fayal nu leen seeni soxla xam ngeen ko waaye yàlla leen ko gën a xam li ngeen yittewoo xam ngeen ko waaye yàllaa leen ko gën a xam li leen jik xam ngeen ko waaye yàlla leen ko gën a xam yàlla leen yàlla defal lépp yàlla defal lépp barab bi nga xam danga ko yor te rafetal ko lool matale ko lool du du fii rek lañ lay waxale wax ji foo dem loolu lañ lay waxal maa ngi fàttaliku daaw bi bi nga xamee ne da ngeen da ngeen da ngeen ñëw ma wax ko suñu Muntaxa dafa ne ma kooku de lu mu mas a wax def na te boobu nekkoo fa nekkoo fa te suñu Muntaxa du waxantu ginnaaw du waxantu nag te seereel na la loolu loolu rek bu ñu fi yemoon ñu xam ne nit ku baax nga kon nag noo ngi ci sant yàlla di di la ci sant di la ci gërëm di la ñaanal yàlla dara bañ ko yàq bu ko dara gàkkal bu ko dara dugg na yokk rek ndax bu yokkoo rek nga yokk yaa ngi mboolem ñi nga àndal ak ñi la ko yéene kon daa nga xam ne suñu xol sedd na bu liggéey bi daal li ngeen fi defagun def gu ci dëkk yi surtout rawatina dëkk yi ndax eh, nun dañoo am jikko joo xam ne fi mu ne bu man man danaa koy def bu ko naa coupé ma am solaire te dëkk bi amul dama naan leen bu ko daal ndax wax dëgg yàlla sa kër di leer yeneen kër yi leerul eh, neexuma dëkk yi noonu la mel dëkk yi buñ buñ buñ naan poroxaan am na naan di fi jaar di jàll rek seen dëkk lëndëm loolu metti nanu lool kon nag bi leen yàlla dimbalee ngeen am xel mu rafet profitoo ci màggal gi yóbbu ko ci dëkk yooyu wax dëgg yàlla santati nañu bu baax te gërëmati mooy li ñuy wax rek li ñu séentu woon weesu ngeen ko kon nag moom nun lottu nañ ci wax lépp eh, xam naa alsan li mu wax sax des na yow li nga wax des na waaye yàlla moom gis na lépp yàlla gis na lépp te lépp yàllaa ko moom lu nit di xam moo la gën xam te moom rek ay fay moom rek a mën kon nag noo ngi jébbal lépp yàlla xam na li nekk ci suñu xol yàlla leen ko defal waaye ko defal kon nag noo ngi sant ñëpp ñun daal dañoo bég suñu xol sedd ba nga xam ne xamun xamun tas suñ li ñuy euh, njaay mi jóge ko fa noo ngi koy sant di ko di ko nuyu di ko gërëm ndax lii mu def ni ko waxee daanaka yow rek laa gis nga di ko def chef de service kon nag moom wax dëgg yàlla am na yitte am nag yëg noo ngi koy sant ci lim fi defagun dese na lu bari nag <laughs> dese na lu bare bare bari noo ñaan yàlla man loo ko ko boobu bu ci mujj gaanu nu def def ak moom ni ñu def ak yow rek seen sant def koog service yëpp ñoo ngi sant bu baax di gërëm daal dëgg dëgg la gërëm nañ gouvernement bi gërëm nañ président gërëm nañ premier ministre waaye yéen ñi nga xam ne yéen la ñuy jox ndigal ngeen di jëf nag wax dëgg yàlla yéen lan gan yéen lan dëkkal yéen lan xam te yéenay def nu gis li ngeen def nu gis ko nag ci tur ak ci seen ndigal lépp mat na dara des yàlla leen ko yàlla nangul te fay leen ko noo ngi sant ñëpp